waaw di sant yàlla rek di ci woo waa Sénégal yëpp muy bés bu am solo bés boo xamante ne ni ñu defoon ci arène nationale bi lu mucc ayib la ñuy andi Sénégal defal ko waa Sénégal loolu nag amul parti politique amul société civile ñëpp a ci bokk làmb jeeg tout le monde la ñuy woo ñu ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm am na ay bus yuy jël nit ñi TER baa ngi fi aussi lépp daal li ñu bëgg mooy président Macky Sall ak yi muy président wu Allemagne di président Rwanda di président Turquie di président Libéria di président Gambie ak Guinée-Bissau boole ko ak président FIFA président ACNOA président CAF ñooñu ñëpp dañuy dajaloo ñëw Sénégal gunge si équipe nationale Sénégal mais gunge si peuple sénégalais ñu am ci nag jongante ci wàllu tàggat yaram xam naa ne VIP mbër yeeg mbër yu ndaw yëpp dinañu ñëw waaye dina am match boo xam ne ay JJ Okocha JJ Drogba ak ñooñu dinañu daje ak ay Marguerite Sène ay Boubacar Sarr Lokot mag ñi fi newoon ñoom El Hadj Diouf loolu lépp pour bégal waa Sénégal la kon Sénégal nag min nañ teranga comme li ñu moom muy stade boobu ñëpp a ko bokk na ñëpp ñëw ci jàmm ñu feete ci jàmm ñibbisi ci jàmm. am aussi un volet culturel. waaw waaw ñu dénk ko suñu njiit mu Youssou ñu koy sant bu baax nag ci taxawaayam moom mu ngi gérer côté boobu nga xam ne dëgg-dëgg dañoo delloo naar bi li mu moom lu ñuy wax delloo xam na ñu koy tuddee waa delloo mbatt ca ndaa parce que nag ku wax culture waa Youssou Ndour jaadu na. te mu ngi koy liggéey ni mu ko war liggéey ñun ñu ngi ci wàllu vole sportif bi te defe naa ne lépp bu ñu ko lëkkalee mooy nekk réussite li nga xamante ne mooy fête bi ñu am mar bi ku bi dina ñëw. ah waaw ku bi dina dellu si ñu teg ko ci digg bi président Macky Sall jooy coup d'envoi wax ak askan wi muy doon moment bu historique. am na aussi musée Pape Bouba Diop. ba nga xam président moo ko diggee woon suba yi. Euh, ginnaaw suba dinañ ko visiter dinañ ko visiter dinañ ko gisee soxnaam ak doom yi ak mbokk yi. loolu lu am am solo la loolu it mooy wane ne jàmbaar bu daanoo ñi des ci gannaawam war nañ koo sagal delloo ko njugal loolu nag bu ñu ko defalee Pape ba defal nañ ko képp kuy def tàggat yaram au delà du football. Dakar Arena stade du Sénégal arène nationale pour ne citer que ses réalisations. loolu mu mel ni su le plan sportif am na jéego yu am solo. yu mais am na lu des. loolu loolu c'est la concrétisation. de la vision du chef de l'État en matière de sport mooy bëgg Sénégal nekk ëpp sportif ku gis loolu xam ko xam nga ne Dakar Arena le 22 wala le quatre jëm le cinq fenêtre basket fa lay amee basket African League fa lay amee loolu moom moo lay won ne rek président Macky Sall fi mu yëkkati mbir yi foofu la te Afrique yëpp a ngi daw si wutal si ñu ensuite mu des nag Léopold Senghor ak Demba Diop. waaw ah, loolu dina door da ngay fàttaliku pose première pierre au euh, stade du Sénégal. ñu ngi ci liggéey bi te 2023 balaa moo jeex. danañu war a matale lu bare bari loo xamante ne bu ñu joxee Coupe d'Afrique daañ ko mën a leen organiser. président jox na la instruction na coupe wër les quatorze du Sénégal. waaw loolu nan ko ko nar a ni ñu ko organiser fii rek dañuy boole culture ak sport yóbbu ko fépp. dëkk bu ñu demit seen seen aada ak seen i cosaan dinañ ko ci dëxëñ su ko defee nit ñi mën a familiariser wo ak li nga xamante ne ñëpp a ko moom muy coupe d'Afrique Sénégal aller retour retour bi stade du Sénégal lay doon comme li ñuy wax ci làmb ji rek dóor aller dóor retour stade du Sénégal ñu qualifié coupe du monde yàlla nañu ko yàlla defal ni ñu ko ko ñaane woon mu may ñu ko ci coupe d'Afrique bi jërëjëf monsieur ñu ngi ak euh, le président du CNG